julli si yonent bi sallallahu alayhi wa salaam sant sama sëriñ Cheikh Mat Bamba sant ko bu baax a baax te di sant sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa la ma ko waxoon rek laa koy wax mooy nee naa ko moom xéewal bu yàlla wàcce la pour mu defar askan wi ku fekkee Masaalikul Jinaan ku fekke yeneen i jataay ak ku ko déglu daa xam ni kii xéewal bu yàlla wàcc la mu defar askan wi yàlla na nu ko yàlla fayal yàlla na fi yàgg te di sant bu baax sama sëriñ sëñ Moustapha Massamba sëñ ma sàmba bi ma amee juróom-ñeenti at lan ma ko jébbaloon te boob ba tey mu nekk sama wet di ma taxawu biir ak biti te lii may dugg moom ak sëñ Musta moom ak sëriñ taxaa ñoo si bokk ñoo bokk gis-gis si man ndax bi ma jógee tib ba sëñ bi wax ma ni ma mankat kat gisuma la ngay taxawal parti politique dama la gis nga taxawal Sénégal yépp liggéeyal réew mi loolu laa gis ci yow ma leeral nag gannaaw declaration boobu gis naa sëriñ bi mu wax ma ni ma teraluma la de ni la bul politique waaye man parti politique laa laa gëm ni du sa jëmukaay yow danga nga yow Sénégal moo war doon sa parti peuple sénégalais moo war doon sa parti kon waruloo am parti loolu mooy li ma sëriñ bi wax ma ne que danaa ko jëfee dama dama ko woon mu may ma rek ma waxtaan ak ñi ma àndal ndax kër doo toxu yow boroom kër gi nga génn bàyyi ña nga àndal yëpp sa biir kër ga déedéet da ngay fexe ñoo ànd ak ñenn ñi ñu ànd ak yow toxu fa nga jëm ñeneen ñi sunoo dem feneen nga fexe ñu àgg fa nu jëm looloo tax ma waxtaan ak ñoom nee naa ñi ma àndal tey ku si bëgg wéy si parti politique mën nga tànn mën nga tànn si leader yi ma àndaloon wala mën nga tànn mën ngeen tànn dajale def seen mouvement politique ak waa dakaar ak ñi nekk si Madické 2019 si Sénégal yëpp loolu wax naa leen ko waaye jàppaleen ni du parti ma dikke ndax ma dikke amatul parti ma Madické xalaatatul def parti Madické day jëfe ndigal man dama war seet lan la sëriñ bi bëgg ma jiitu ko si waaye su demee ba sëñ bi di ma bëggal dara la ma bëggal mooy li gën si man sama àddina ak alaaxira sëñ bi li ma bëggal moo gën si man àddina ak alaaxira rawatina gannaaw ba ma ko bëggalee dama ñëw sama sëriñ dëggal loolu kon wax dëgg yàlla mu ma dikk jëfe rek jëfe ndigal rek moom mooy sama taar feneen fu ma gis fu dul jëfe ndigal booba yàq naa loo xam ni kenn du ko mën defar si àddina alhamdulilah bi sama xol bii jëfe ndigal rek a si nekk lii moom laay wax sénégalais yi kon ba li jiitu loolu daje naa ñëpp maa ngi daje ñi si ëpp damay continuer gannaaw fii dajeek ñëpp wax leen lan moo waral sama décision bi ñu dégg que sama làmmiñ jaaduwul rekk ñu koy dégg ci presse bi dañ ko war dégg sama làmmiñ sant naa bu baax nag waa Touba ndax kat ñoom ñëpp a taxaw li ma am si parrainage ci Touba aw ma ko fenn ndax Touba la sama yaakaar jëkkoon jublu am naa ko dëkk yëpp waaye aw ma li ma am Touba aw ko fenn kon waa Touba yi ànd ak man rusloowun ma taxaw nañu seen kemtulay kàttan nee naa leen man it rusloowuma leen la nit ñi doon wax si dëkk bi di wax ma dikkee candidature Macky Sall la nangam ak nangam wax naa leen tey àddina bi yëpp xam nañ ni lu ma def si élection yi sama poste la génn sëñ Tuubaa fàggul ma xéewal yi samay compte samay kër bàyyiwuma dara dërëmu kenn gannaaw sama ñaar wala ñetti xarit yoo xam ni jàppale nañ ma as tuut dërëmu kenn dugg si kon nag man am naa te boobu ni sëñ bi fàggul na ma ay xéewal alal fajul de gàccalay faj ma jug taxawu def li si war yépp gannaaw loolu ànd naa ak opposition ba ñépp xam ni koroog si guddi élection bi laa def déclaration ni su fekkee ni Idrissa mooy dem deuxième tour maa ngi fas yéene jàppale sa yow moom foofu ma dajale quatre candidats yi man maa am initiative dajale leen ñu bokk waxtaanandoo di jëm di bokk fi nu jëm bi nu jugee foofu cercle boobu nu yaatal ko ba mu doon tey grande alliance lépp ci sama taxawaay kon man ma suma na kenn nit ñi nag ba doon wax dañu xamul samay valeur xam nga sëñ Abdoulaye dafa wax loo xam ni moom lay dund sama giiru dund dafa wax ni gannaaw fuur ba nu dugal sëñ Touba moom bi ci sëñ tubaa muccee si la gane ci àddina nu wax man Abdou Lahad Mbacke su moom waxam laay nettali de ñu baal ma si ma koy waxee sëñ Abdou Lahad laa wax waaye moom nam ko waxee man Abdou Lahad Mbacke su ma yaakaaree kenn ku dul yàlla su ma yaakaaree kenn ku dul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam su ma yaakaaree kenn ku dul sëñ duma goor ma góor du ma jullit man su fekkee ni dama am leneen lu may def di ko yëgle ba ñëpp dégg ka ma am ay mbir yoo xam ne maa ngi koy doxale booba ñàkk naa ngor te man mu gëm sëñ Tuubaa di ñàkk ngor ñëpp xam ni man dama bëgg doon nattukaayu ngor képp kuy natt ngor nga ñëw si dikkee fekk ni nattukaayu ngor la ndax man ñëppay wax ni ma Madické Madické mu sëñ Tuubaa taalibe sëñ Tuubaa dafa war gore ni ko sëñ Abdoulaye waxee moo tax sama àddina yëpp ngor laay jëfe fu nu toll dajale naa mbooloo mi yëpp waxtaan ak ñoom maa ngi leen di sant man nag maa taamu déclaration ma defe ko fii Touba. ndax ñëpp a xam ni Touba mooy sama base politique ñëpp a xam ni ndigal li Touba la jibee ñëpp a xam ni tubaa mooy sama yaakaar àddina ak alaaxira moo tax ma ñëw fii def ko fi maa ngi sant bu baax waa Touba dellu nag di sant sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te weer